fii bu fekkee ne am na benn kër ci ndakaaru boo xam ni mën naa ni sama kër la kër gi ci la bokk walla mooy première kër parce que papa Adama Ndaw dañu nekk étudiant am bac ñëw ndakaar jóge ci àll bi ñoo xamuñu kenn Dakar ñu xamante ak papa Ndaw bi université lañ mës a jóge daal di ñëw ci kër gi booy nañ dem suñu kër ñu topp ko ñun ñëpp ñu ñëw bañ fi duggee ba tey 92 xaw ma 93 ba tey génnuñu fi. di bu ma amee benn koñ ndakaaru mais vraiment Castor la. di bu ma amee benn koñ ndakaaru mais vraiment Castor la donc donc moo tax. motax tax challenge bi am solo motax challenge bi am solo donc euh, Castor obligatoirement dañ fi wara gagner donc xam ngeen ko voilà donc di wax ni di wax ni aussi moy la même chose rek limay wax wa Wakaam yi aussi parce que Wakaam it dafa bok ci man bama ma xalé la fa dara dara dem ba légui am fa ay bu baakha bax ah mënuma leen fay waa Wakaam yi su ngeen gisee mobilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def biir Wakaam noppaluwuñu benn yoon benn yoon noppaluwuñu donc ñoom it ma di leen sant bu baax a baax di leen gërëm mais vraiment di sant bu baax baax waa Castor ni may waxee waa Wakaam man je suis le candidat de Wakaam noonu laa mën a waxee ni je suis le candidat de Castor dercle loolu incha allah bëgg naa ñun ñëpp. ñu taxaw ci bu baax a baax a baax a baax fi ñu jëm taxawaay la laaj wax naa ko lu dul benn du ñaar il faut que ñu mobiliser wu du yomb du yomb benn yoon mais li ñu li koy li li li euh, li ñu benn góoru murit waxoon benn sëriñu mbàkke mbàkke ma ànd fa ak ñoom cheikh yi defe naa piir la woon mu ne ñu am na cër yoo xam ni yàlla da koy joxe ah Aliou Dia jox naa ko cër bii mu ñëw ci yow mais nee na am na cër yoo xam ne yàlla du ko jox kenn da koy teg nële di xaar ku ëpp pas-pas pour mu jëlal ko boppam ah mu ne ma nag président cër bi nga bëgg ci dafa bokk ci cër yi yàlla di teg di xaar boo amee pas-pas mu gëm ni yaa ëpp pas-pas ñëpp te sa xol sell na ci li ngay wut boo tàllalee loxo mu teg ci loxoom nga teg ci sa loxo loolu nag mooy li nga xam ni te gëm naa ne ñun sunu mébét pour Sénégal dafa pur loolu man en tout cas xam naa te damay wax toujours bu fekkee ni Sénégal bi ñuy xëccu walla Sénégal bi ñuy laaj parce que dama ne man ñun du ñu xëccoo réew parce que nit booy xëccoo dara amaana boo ko jotee na nga ko war a taxawee doo ko taxawee dañuy laaj dañuy laaj réew mi

ñëwuñu fi pour enrichir ñëwuñu fi pour ndomb tànk dañu ñëw bu ñu yàlla euh, dimbalee ba suñu projet mat sénégalais yi wóoluñu dañu ñëw pour servir le Sénégal man li ma gis ci àll bi li ma gis ci dëkk bi ku ko gis continuer di nelaw di yàndoor c'est parce que xamoo lu xew dëkk bi nit ñi sonn nañu réew mi nit ñi sonn nañu amuñu ndox mu ñu naan nit ñi xale yaa ngi jël ay gaal di dugg ci àll bi sunu mbay mi yàqu na napp gi yàqu na càmm gi yàqu na njaay mi yàqu na lépp yàqu na jikko yi tasaaroo nañu réew moomu bu fekkee ni ña ko dëkkee amuñu conscience bu tax ñu war a jóg taxaw ne enough is enough doy na nañu jël réew mi teg ko ci loxo yoo xam ni jàpp nañ ni ñii kat seen ambition yëpp mooy na baax te ñun loolu la ñu gëm mooy sunu ambition na réew mi jag ñu defar jikko yi delloowaat valeur yi nga xam ne moo nekk valeur yi nga xam ne mooy sunu soubassement mooy sunu richesse bu gën a am solo boo xam ne am nañ ko ba sénégalais foo mën a nekk gis ne réew mi kat tappale jeex na fi ay caaxaan jeex na fi ay njuut njaaj jeex na fi teg ay diil jeex na fi lii fi nekk mooy ñu teg réew mi ci dëgg te ñu ànd ci dëgg parce que réew moo xam ne dañuy raggante la ragalante ay ginnaaw dëgg amu fa ay naxaate fa am réew moomu du ma sa baax yàlla ci boppam moom moo ni su ngeen bëggee ma jàppale leen dangeen di taxaw a ah, bu ñu taxawul nag li fi nekk bu continuer musiba la réew mi fu mu jëm ñun ñëpp xam nañ ko ñi sonnoon démb a ngi gën a sonn ñii jël alalu réew mi

boo xam da nga ko war a rien ne sera plus comme avant rien ne sera plus comme avant bu ñu jotee ci réew mi daañu ko teg ci dëgg ku dëgg neex nga tok, ku dëgg naqari nga sàkk pexe mais ci dëgg lañ koy teg ñi may àndalit bu doxalul dëgg ma jële leen fa andi kuy doxal dëgg loolu kese donc loolu moom defe naa ne amul amul naatable te dama koy wax te foofu laay terminer lenn rek ma yitteel du ñaar du ñett du ñeent li ma yitteel mooy ndax li ñuy dugg intérêt wu Sénégal bu dul intérêt wu Sénégal sama yoon newu ci du ma ci dox duma ci wax bu dee intérêt wu Sénégal nag dinaa mobiliser waa Sénégal yëpp ba mu sotti à commencer par sama bopp ak ñi may àndal di liggéey Budul dul intérêt Sénégal dina ni képp ko and ak man di liggéey bu ci perdre sa temps bu sunu intérêt ñun bëgguñu intérêt au Sénégal moo ñu tax di wax toujours ne limay djublu mouy muy présidence de la République du Sénégal bu jubo juboowuma ci ak sama borom ci décision bu ma jël décision bu ma jël lima bëgg moy ci ak sama borom soxlawuma ma wax dama koy wax toujours sénégalais yi amaana du ma dajeeg ñoom yowmal xiyam que yowmal xiyam defe naa dina bari ay nit yu baree baree bari yu am ay problème yu bari yu ñu war a lijjanti defe naa doo tal kii Sénégal la jóge wala jógewu do amaana du ma dajeeg sénégalais yi yowmal xiyam mais yàlla dinaa dajeeg moom dina ma laaj te bëgguma dajeeg sama borom mu di ma laaj loo xam ni dama ko waroon taxawee te matul wala ma koy laaj donc yalla, la bàyyi sama xel sama loxo bi ma ngi koy ñaan yalla dafa gumako sama loxo bi ma ngi ñaan yalla buma ci signé mukk luy lor Sénégal te bama dalé liggéey di signé légui yàgg na te fàttalikuwuma benn yoon ma signé dara dem tëdd sama kër ne ah la ma signé waruma ko won signé même fa ma nekkoon di liggéey bala may signé dinaa ko saytu xool ko xoolaat ko ba am yaqin ne lii kat may signé teguma ko ci sama bakkan sama teeyu bakkanu kese mais intérêt général laa ko teg donc man loolu mooy sama ambition pour Sénégal di sant ñëpp di gërëm ñëpp j'espère que fàttewuma dara Papa Ndaw asalaamaaleykum wa rahmatullah